maaleykum salaamaaleykum tënkee ci salaamaaleykum mbaaw boo gisee li ñu dajale fii nga xam ni lu rëy la woote bu rëy ak kan la golden boy de la musique sénégalaise Faramareen bi le prince de la musique li ñu koy woowee Wally Ballago Seck et le Ramdan ñoo leen joxati rendez-vous le janvier fan stade mbaaw maa ngi sama wet ki nga xam ni euh, mooy euh, Babacar Michel Babacar Michel lan mooy xew le 8 janvier. ah le 8 janvier moom kenn du ko tardé te kenn waru ko tardé waaw ah, Wally Ballago ah, mbaaw donc euh, ñu leen di wax yéen ñëpp waa Tëngéej waa Mbaaw donc ñu leen di invité di leen wax yéen ñëpp ngeen ñëw foofu le 8 janvier ak balaa ko Seck waaw entrée bi mille francs la ak 10 000 francs donc bàyyiwuñu kenn Tëngéej Mbaaw yéen a ay ak Wally Ballago Seck li mu koy defee saa su ne rek fu mu woote foofu day màbb te Wally ko Seck la ñuy wax ñu ànd a Seex Kan Yann Production ak Gaston Production ñoo leen jox rendez bi le 8 janvier Mar ku bëgg si billet yi naka ngay def waaw salaamaaleykum mbokki Tëngéej département bu Mbaaw ñu ngi di ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen wax yéen a ko doon laaj indil nañ leen Wally Ballago Seck indil nañ leen ak Yane Production ñëpp ñu ngi leen di woo ci biir bu kenn manqué réservation bi 77 la 329 59 94 waaw ku ci woote rek heure boo wootee dina la defal sa ak ñen ngeen si woo si bés bi. waaw ASC ñu ngi woo waa Tëngéej yëpp bàyyiwuñu kenn. particulièrement ASC Lébu gi ñu ngi leen di woo le président Ibou Gueye Pamas jël woote bi teg ko seen loxo di woote ASC déggoo da daa Rahman waaw di jël woote bi di ko teg ci loxo euh, Paka Boy di jël ASC Ngañ Sàmba ñu ngi leen di woo ASC euh, Jokko ñu ngi leen di woo la président Ngañ Lo suma xarit ASC Teenu Nguy yéen ñëpp yéen a ngi ci biir ah ASC nett ngeen jëpp bàyyiwuñu kenn déggoo sant yàlla yéen ñëpp bàyyiwuñu leen ASC Waldaan Alwaar le président Mass yéen ñëpp ñu ngi leen di woo ci bés bi mu ngokk ñoo ko déggandoo réservation yi tam la numéro baa ngoor di jàll si baaw écran bi wala balago Seck El Ramdan stade Mbaw 8 janvier aar na surtout pas manqué le stade Mbaaw wala balago Seck ak waa Ramdan e eh, Mbaaw maa ngi ñëw de waaw su mu ñëwee Mbaaw ñëppay wàcc si incha allah donc préparez-vous Yann Production avec Gaston Production wala balago Seck ñu ngi leen di jox rendez-vous le janvier incha allah stade bu Mbaaw It's right.